Ce jeudi 16 avril 2020, le ministère la Santé et de sociale a les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 435 tests réalisés, 21 sont revenus positifs. Il s'agit de 19 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs est déclaré guéri. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 335 cas ont été déclarés positifs, dont 194 guéris, 2 décédés, 1 évacué et donc 138 sous traitement. Le ministère la Santé l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective je vous remercie maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ne suñu dëkk Sénégal am na ko ci mbas mi ñuy wax Covid 19 ci bésu tey bi du fukki fan ak juróom benn ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na lim bi ma leen di bëgg a jottali ci ñeenti téeméer ak fanweeri juróom test yi nga xamante ne def nañu ko ñaar fukk ak benn dellu si nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom-ñeent cas ñoom mooy ñi nga xamante ne mooy cas contact moom lañuy ñuy saytu si suñu bëriwu fajukaay yi ñaar ci ñooñu mooy ñi nga xamante ne moom lañuy wax transmission communautaire maanaam kenn xamul kan moo leen wàll doomu jàngoro ji ci ñi nga xamante ne ñu ngi feebaroon tëdd ci bëru fajukaay yi ñeent ci ñooñu saytu nañ seen wér-gu-yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñoom wër nañ te génn nañu ñi nga xamante ne ñoo des ci bërëbu fajukaay yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bi feebar bii di mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee Sénégal ba léegi ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ay nit gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji ci ñoom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wër nañu te génn nañu ñaar ci ñoom génn nañu àddina am na ci benn boo xamante ne dañ koo delloo ci dëkk ba mu dëkk ci loolu ñu ngi dese fii. téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñi nga xam ne ñu ngi leen di faj ba léegi ci bërëbu fajukaay yi. ministère la santé et l'action sociale mu ngi ñaax askan wi ñu gën a déglu di farlu ci li nga xamante ne moom la ñuy wax ne bu ñu ko defee feebar bi dina leen sori te du leen dal ci loolu ñu ngi fàttaliwaat ne am na farata lool ñuy gën di raxas loxo yi.